Aïda Samb hmm. lan moy say relation ak Salam ba tax nga teew fi ci anniversaire Euh waaw sama relation ak Salam mooy relation bi artiste yi amante ci sen biir hmm. mais bi dafa rax parce que Salam sama cousin la Mbok la bu jege alors lool moom andé tay tey euh, en tant qu'une sœur en tant qu'artiste ñëw soutenir ko vraiment ci ci ci -hmm. mais gars yi ñëpp. gis nañ léegi artistes yi ku jóg jël grand théâtre Aïda Samb lan lay pare lan lay xaar pour jël grand théâtre yu man pare gu moo tax lu tax parce que man maa ngi door a génn sama album alors mais est xam nga ne affaire bi du si door a génn parce que yow dafa am loo dencoon waaw c'est normal c'est ça aussi c'est vrai mais lépp lu jot lépp ak moment bu mu jot Aïda yaa xamtiwul dara euh, damay xaar confirmation ba pare il faut me confirmer. voilà photo. musique sénégalaise. Euh, premier album sénégalais yi bëgg ko alors ni ngi ci beneen album pour deuxième album Inch'Allah. dama la ci benn war. ko la lan waral nga wax dara parce que dañu ci bi dafa mm, tentation surtout ñun ci suñu euh, dañuy ah, souvent dañuy dégg que ne milieu showbiz dafa tentation mm-hmm. wala alors c'est pas le cas parce que nous, ay doomu aadama lañ am ñu bëgg di ko dund alors bu nekkee xale nekk ci di dara pour man la la fa xastal ci contexte ñuy faral di wax jamono ji parce que. dañuy jékki-jékki génne benn musique boo xam ne dañ ciy wax wax yoo xamante ne teggatuwuñu wala ñu wax ci wax yoo xamante ni bii ndaw ñi dañ koy utiliser comme ay ma dara nam ma coco yaa koy daggate yaa koy bomb yaa koy corete affaire yooyu léegi euh, ñu gis ne léegi kon wax yu njëkk yi suñu maam yi bàyyi woon dafay jógee macha allah tubaarkàlla loolu noonu lan ngay wax ci lool noonu. Euh, man loolu du mun ma ci débattre parce que lu tax mooy doomu aadama bu nekk ak nit bu nekk sa style sa. li nga xalaat ne boo ko defee sénégalais bëgg ko alors du mu dugg ci ci détail boobu parce que du sama domaine man artiste laa alors li may li may liggéey laa xam li may liggéey di ko jox doomu aadama yi loolu laa xam du ne du ma ne lii duma ne laa ñun ñëpp ay artiste lañ ku ci nekk am nga sa am nga loo xamante ni mooy sa fort ci nga yaakaar na yow boo ko woyee nit yi prêter ci yow attention wala consommer li ngay def wala leneen ak leneen leneen leneen alors voilà ku ci nekk ak sa ok ok ma ñëwaat benen beneen question naka lañ mëna def ba musique sénégalais gën a avancé jëm kanam waaw mooy ku ci nekk rek war wala wa nga fété nga nga bay ci sa war loolu moy parce que lepp ci aduna liggéey la comme yu nek musique comme nek nekk baykat ba ca tol ye di bay waram lepp ci life bi gor gor mooy tax doon góor. dernière question Aïda Samb. Mm. am nga jëkkër. man déedéet. lan ngay xaar. yàlla mooy may jëkkër. waa ba xaar yaa fa gis waay yow. waaye kon